di leen jaajëfal bu baax mu mel ne alxamet ji ñu génn ñu ngi doon waxtaane lu jëm ci li ñuy wax alkabair maanaam bàkkaar yu mag yi nga xam ne mooy doon suñ bindu fajari alxamet yi insha allahu taala nga xam ne noppi woon nañ ci kabira bu njëkk bi nekkoon li ñuy wax bokkaale yàlla ñu jotoon cee def ab diir ñëwoon ci alxamis ji ñu génn ci bu ñaareel bi kabira ñaareel bi nekk li nga xam ne mooy rey bakkan te tey ko ñu koy wax xatlu nafs ma waxoon la ci bind ba aaye yi nga xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala indi na ko ci muy lu am solo loo xam ne jar naa bàyyi xel ndax rey gi bari na lool te it rey giñ ci jiiñ ak tayeef it bari na lool te ab jullit du foye loolu bu loolu jàllee nit ci boppam da dut foye bakkanum nit ndax waxoon naa la ca bind beene ku jëloon aw kayitam defee ci lëgam sax wala ab si ndaxam boo jëlee kayit wax xotte mu naqari ko waaye yàlla nag subhaanahu wa taala yim dajale yëpp ba nit sosu ci nit mën a jàpp nit rey ko ci maali furo loolu itam jar naa waxtaane moo taxoon mane la ñaareelu kabair ci yi nga xamante ne mooy bàkkaar yu mag yi nga xam ne ku ci xas ba def benn taqal na loxoom tilim joo xam ne raxasub kese-kese du ko gaaw a setal bu ñaareel bi mooy rey bàkkan rawatina te tey ko accident yi di rey te ak tayeef nekk ci ndax bu fekkente ne oto la tubaab bi ne woon nangami nit a ci war a nekk ku ko siisarsel ma ngay defar ak tayeef ndax puno yo mën naa bañ a àttanati loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen Eh, eh, eh, léegi danqaamtalu bi am ci dawal yi maanaam danqaamtalu mooy yenu dara te jàppoo te téyewoo ko kii dawal it léeg-léeg muy dawal te du téye ni mu war a téye du am way gim waya gim war a am waaw moo tax ñii dugg ci transport en commun yi sama kalaas ki waaw sama kalaas ki ngeen ñaanal ma yàlla boole ma ci ñi nga xam ne nag danañ am lu ñuy war ba loola wàcc leen lu ne nga ciy daj lu ne lu ne waaw waxuñu njàmbat nag <laughs> waxuñu njàmbat dañoo bind baa indi ci loolu rek ñu wax ci suñu xel waaye xam nga yàlla léeg-léeg lu mu def rek dafa am lu tax ndax tey nit dana jànge ci fi muy jaar nit dana jànge ci fi muy jaar loolu parenthèse la bu may indi ndax jàpp naa ne tey kiñ ne mooy ministre bi yor wàllu transport am na yoo xam ne mi ngi xew ci garage yi yoo xam ne mën na koo bañ a xam loolu nag sama nattin dong la mën naa am sax mu xam ca lu ma xamut waaye li ma yaakaar ndax damay njortu ne ñun ñi nga xam ne ñooy dem ci oto yi ci gaaraate di jël oto li nga xam ne moom lañ ciy gis mën naa am moom gisu ko léegi loolu ñaari mbir da ciy nekk mooy coono bi client bi di daj moom yëgu ko bañ mën a indi luy tax coono boobu wàññeeku coono bi chauffeur bi di daj it yëgu ko ba mën a indi luy tax coono chauffeur bi wàññeeku parce que ñaar ñooñu rek ñoo fi nekk chauffeur bi client bi ak transporteur bi defe naa transporteur mooy kiñ ne moom moom oto bi nga xam ne moom mooy dawallu ñi koy joxub xaalisam muy fay ka koy dawalal ñett ñi ak kiñ ne moom lañ fal jëwrin yi nga xam ne wàllu dem ak dikk moo koy saytu am kuñ fal ne ko wàllu tëli yi oto yi jaar bay dem ak dikk yaa koy saytu am koo xam ne moom lañ teg ci kaw ñooñu ñëpp ne ko yow yaa yilif réew mi ci wàllu doxalin woowu defe naa ñooñu sori giñ sori piste lii xew di xew tax na lay xew duñ ko yëg tax na lay xew duñ ko yëg nga xam ne bari na yoo xam ne tey eh, su ma ko waxoon mu nekk lu ñu dénoncé te am na ci te bari na waaye bit bu set am lu ci feeñ waaye bala cee dara feeñ accident am bu accident amee ba ay bakkan des ca daal maara day taali ñëpp àndandoo yëngalandoo coowandoo mu jàll ñu dalandoo te foo demee fu accident am rek ñett ñi ma wax nii ñëpp ku ne am nga ci wàll woo xam ne war nga ko caa jëlee mooy man client bi dugg ci oto bi am naa ci wàll ndax bu fekkee dafa si charge man gisoon naa ne fees na ma yéeg lan moo tax ma yéeg chauffeur bi ne ma yéegal am na ci wàll ndax gisoon na ne fees na mu yéegal ma lu tax mu yéegal ma transporteur bi ñuy verser si am na ci wàll doonte fekkewut fi loolu di xewe waaye ndax amut poids bu mu teg ci koy dawalal ba tax muy def loolu muy def ndax bëgg am koom mu gën a jëkk bu ma jëlee tey wàllu sécurité ñi muy romb ñu taxaw ci kaw tali bi ñu leen di masawu baax ndax coono yiñ ciy daj ak sedd bi nit ñu nekk seen kër def yëpp nga taxaw ci sab tali yor sag léet ak sab làmp di arrêté ay oto ko contrôlé kenn amul sa fay kenn amul sa fay moo tax respe bu leen nit jox rek yeyoon nañ bu ko ëpp waaye ndax ñoom it bi loolu di xew def nañ liggéey bi ñu war a def ndax kooko rombu leen ndax contrôlé wuñ ko ba noppi boo jaaree ci télé bi guddi di dem oto yi nga jiitleel te dara tàkkut ci ginnaaw oto bi nga jiitleel mu sarse ba pant oto bi nga jiitleel muy daw xel wu jaaruwut nga dem ak moom ba romb ak moom mu ànd ñu arrêté ko mu départaat doublé waat la nga gis ginnaaw oto ba la ca tàkkuroon ba tey tàkkut te contrôlé nañ ko ba noppi xel wam doon daw wàññeeku te contrôlé nañ ko ba noppi yooyu yëpp bu amee waaw kilifa gi ma jox ciir lool muy alkaati bi ci télé bi ak respect bu ñu ko mën di jox ndax moom bi mu arrêté waa ji def na li mu war a def loolu ab laaj la bu yooyu yëpp dajee nag te réglé ndoo wuñ feebar yooyu góom bi li ko wër réglé wuñ ko xool nuñ koy faje yoon wiñ jaar tëli bi ndax doo daanu bi fi mu nekk normal na oto bi paan ndax fi mu paan fi mu taxaw ak li muy wane ne damaa paan ba nit ki mën koo moytandiku ndax fi mu ko teg baax na yooyu buñ ko seetloo danañ xam ne sàmmonte gi ñu sàmmonteeg moom des na mbokk yi ni ñuy doxee ci mbedd mi nga gis nit di dox di tëllëx tëllëxi ba joggi njaayum jàmbur noonu la ñuy dawale ci tëli bi ba nit mën a dawal ba mbëkk loo xam ne yoon nekku ci ndax am xelam moo àndut moom bi muy def mbokk mi ni ñuy doxee ci mbedd mi nga gis nit mën a naan ci kaasu kafeem ba mu jeex mu jël kaas bi ne wuru sànni ni ngay gis nit mën a ci mbedd mi ba mu yàgg mu taxaw tekki tubayam génnee la muy tuure ndox tuur ndox ba doyal noonu la nit di dawale ci tëli bi di tell telli di dem dafa fekk ne danse bi nag fee lay ëppee ndax fee fu mu ne tëll rek ay bakkan des fa waaye kenn nit ki la kenn nit ki nga dëkkal ci kër gi mu yéeg ci escalier yi di karaas karaasal ay dàllam ba teelaa nelaw ba teelaa nelaw di kër kër ki nga xam ne moo ne ci koñ bi ayib daayira rek tax mu takki rajo di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu ba teelaa nelaw ki am ngénd tax mu baare koñ bi kii tabax këram tax mu wàccee jalu suufam ci digg mbedd mi jël ay mboolam jal ay mboolam ci digg mbedd mi ki nga xamante ne ndoxam mi mu génne ci këram di ko tuur xoolut ba xam tooyal na miiru jàmbur wala déet kooku rek mooy ki nga xam ne mooy dawal oto bi ci tali bi maanaam ñun la ñun la kenn nit ki la ki nga xam ne moo toog di wax ca média ba te la muy wax sax maanaam contrôlé wu ko xamu ko sàmmonte wut ak moom dund ko gëmu ko kooka rek moo nekk ca tali ba ba léegi gis nga moo tax bu ñuy saafara te te saafara ndaaw maanaam te saafara ndoowuñ fépp jàngoro ji du gaaw a wér léegi nag la muy indi mooy giraawaal yu mel ne yiy xew te ku ne am ci responsabilité tàmbulee ci man mi gën a tuuti ba ci ki gën a mag ci réew mi bu ñu waxtaanee alkabair ci suñu bindub tey war a fekk si ba ñu daanee loon ci alxames jële te doon wax ci li ñu wax rey bakkan loolu ab introduction rek la waaye cim xel rek la tegu nag mën naa jub mën naa dëng bu jubee alhamdulilah bu dëngee ngeen jéggal ma waaye lii may bëgg wax nag suñ borom a ko wax moo ne képp koo xam ne rey na ab jullit mooy ku gëm te tey ko ak fayam mooy sawaraw jahannam ñu ne ko ah mu ne xaalidan fiihaa ci lay sax yamu ca mu ne wa xadiballaahu alayhi yàlla mere na ko wala anahu te itam rëbb na ko wa aadda lahu azaban azima préparel na ko duma yu mettee metti yal nañu yàlla musal ci rey te tey li ñu rey aaya jooju jàngaloon naa la ko keroog alxames ay ji ci topp suñ borom nee na walladina laa yadcuuna maca allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa asaama yudaacaf lahu lahu alcadaabu yowma alqiyaama wa yaxlut fiihi muhaana illa man taaba wa aamana wa amila saalixan rey gu bari gi moo taxoon suñ borom ne ma farataal ca bànnu Israël tam ñeen leen yéen mooy ki nga xam ne dafa rey nit mu ngi mel ne koo xam ne dafa rey dafa rey kenn nit benn bakkan mi ngi mel ne ku rey nit ñépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci suñ bindub tey nañ moytandiku juróom-ñaar yi nga xam ne waxoon naa la ne mooy juróom-ñaar yi boroom xam-xam yenn yi ne ñooy juróom-ñaari bàkkaar yu mag yi ba mu koy lim mu boole ca xatlu nafs allati xarama allahu illaa bil xaq rey bakkan bi nga xam ne yàlla dafa araamal ku ko rey ndax am na koo xam ne yàlla moo ne rey leen ko ki yàlla ne rey leen ko mooy ki rey nit te tey ko yàlla nee na kooku rey leen ko ndax an nafs bi nafs am na keneen ku yàlla ne rey leen ko mooy ki nga xam ne dafa am jabar ba noppi dem jotee jigéen jum tëkkut lislaam nee nag kooku bu se bu ñeenti seede teewee te doon seede yu maandu nañ ko rey am na keneen ku ñu war a rey encore koo xam bakkan bi yàlla daf koo rey mooy ki nga xam ne ab jullit la jékki-jékki génn ci diine te tey ko murtat buñ ko attee te tuubloo ko mu bañ a dellu siwaat dañ koy rey bakkan yooyu la yàlla wax ñu rey ko waaye képp ko rey benn bakkan nag te fekk atte boobu téewut nga rey ko reyu direct nag parce que rey yi daa bari am na reyu indirect parce que nit ki dana dox ci penc mi nekk rey nañ ko ndax teg nañ ci deram loo xam ne mënatut a génn mënatut génn yàlla xam na ko yàlla xam na ko léeg nga taal télé bi gis koo xam ne li muy wax ni mu amee solo ni mu intéressant waaye rumeur ak wax maanaam tax na li muy wax doo ko déglooti te sénégalais du déglu li waa ji di wax ci lu baax waaye lim rëcc la lay jël yal nañu yàlla yokk suturaal yal nañu yàlla yokk suturaal waaye nit dana wax fanweeri at di wax loo xam ne xëy na nit ñëpp mën nañ ni waaw moom kay tubaarkàlla ndeysaan waaye gis nga bis bu juu mooy wala mu juubu wala mu fakkastalu te tuturas yàlla àndu ci ñu fàtte lam doon wax lépp loola rek ay feeñ coow loolu di am léeg-léeg rey nit am ci boobu sax garawut waaye eh, bari na ay façon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaala rajulin nabi alayhi salaatu wa salaam jenn waaye daf koo laaj ne ko ayu zanbin ahsamu inda allahi ban bàkkaar moo gën a rey ci suñ borom subhaanahu wa mu ne ko wutal sa borom ndend te fekk moo la bind allahu akbar an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqaka waaw wutal yàlla wutal yàlla nawle yàlla amul nawle kenn du ko wutal nawle nawle mooy ñaar ñu bokk lu ñuy def kolek wala naataango yàlla amul naataango moom yàlla képp la amul naataango bi yàlla bu mu seqal ngelaw leeg taw beeg wërsëg wi ak dundu geeg dee gi yàlla amul naataango ci loolu moo tax bind boobu bu mokkoon nit noppalu yow miy xëy ci fajar gi bind boobu bu nopp bu mokkoon doo yor ay sondeel di wër jigéen joo ko sarax ndax sa surne bi neex bu bind boobu bind boobu mokkoon kenn dootu la nax ci maa man ak mënuma ndax dangay nga yëg ni yàlla xam na ko léeg ma ñëw fajaru àjjuma incha allah bu suba joxe ñaan wala dara damaa bëgg nga yëg ni li ngay ñaan lu ji ba di ci rey sa bopp ba di ci rey sa bopp léeg ñu digal la nga rendi te mu te rendiloo suñ borom subxanahu wa ta'ala la la ñu digal la nga saraxe te saraxeeloo suñ borom subxanahu wa ta'ala la la ñu digal la maanaam nga takk te man laa génne ci diine l'islam préparé loo na la yooyu ba noppi. an taj'ala lillahi niddan wa huwa xalaqak moom laa doon waxtaane mooy bakkaar bu mag bi ba ci njëkk te mooy bokkaale yàlla waaw bokkaale yàlla léegi bu ñu lay ñaanal dañ ñaan la yàlla na la sëñ jiw defal nàngam yàlla na la sëñ jiw may gudd fan yàlla na jiw may wërsëg. yàlla na nga fi yàlla na la fi sëñ diw yàggal loolu nekkut ci loxol sëñ diw waaw ak nag respect bi ñu leen jox gëm gi ñu leen jox worma gi ñu leen jox ak niñ ko yeyoo ak barke bu réy bi ñu am ak wàccuwaay buñ mën a am ci suñ borom loolu ci loxol suñ borom la nekk te ñoom ñooñu ñuy ñuy wax ne yàlla nañ la ko defal ñoom ñoo ko bind ñoo ko bind te bul ne ma nag ñoom ñi ko bind nag seen wax jooju moo gën a wér yow sa njortu li <laughs> yow ki bind bindam wax ne lii mooy lu wér waxam jooju moo gën a wér yow sa njort li nga bëgg a baase woo yow nga xam ne yow njaamu yàlla gee gëm gi sam xel nga koy takk te yàlla xam na ne gëmoo ko waaw léeg ñu tudd sëñ jiw nga ne bokku ci de est-ce que waaye yow mi koy wax yàlla xam na ne yàlla xam na ne parce que li lay won loolu mooy lam digle nekkoo ca la muy tere itam wëttandikoo ko kon bokkoo ci googu boo boo ko gëmoon ku la xool doo waxagul ne door a xam ne ca nga bokk wala déet yàlla kenn du ko wutal am nawle yàlla képp la yàlla képp la boo liiree téere bu tudd mawaahibul xuddus sëriñ tubaa ma ngi cay jàngale lu jëm ci wàllu tawxiid jooju wàllu wéetal suñ borom ci wàllu woowu am na sax bu gën a suufe loolu am na fu mu wax ne adurru wa nafhu min arrahmaani waaw wax ko ñetti yoon wax ne laysa min al biidaani wa suudaani laysa min al abraari wal fujjaari noonu ak yu bari hmm? bañ ko waxee loolu mu ne mooy wutal yàlla nawle te yàlla moo la bind ñu ne ko ak ban mu ne rey sa doom rey sa doom ngir ragal ak ñàkk ngir ragal ak ñàkk ma waxoon la bind bi weesu ne la ñiy wax wàllu planning familial léeg-léeg ñu jël hadis bi ndax booba nit dana rey njabootam ndax ragal ak ñàkk waaye kii sax dana ko justifier reyu ñàkk waaye rey nit te fekk nag mënoo wax ne lii moo tax ma rey ko aw cent francs la wala da xuloo wala da ngaa mer waaw ba ca topp nag di bu garaaw danaa ci ñëw mooy jaaloo njaaloo ak sa soxna dëkkandoo allahu akbar joteeg soxna soo xam ne xam nga loolu dafa garaaw ndax àq yi ca nekk la nga war a rafetal dafa bari nga jël yooyu yëpp daal di koy sànni fële nekk ci sa bopp loolu baaxul moo tax e, suñu bindu tey jëm ci wàllu rey bakkan rey bakkan te tey ko rey nit te tey ko mooy ñaareelu bàkkaar bu mag bàkkaar yu mag yi nga xam ne bu ko nit defee ne naa la taqal na loxoom taqal goo xamante ne raxasu du ko gaaw a dindi boo xool ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa am na beneen xadis bu mu indi bu jara def ak taxaw seetlu nee na ñaari jullit fu ñu dajee di xeex ku ne rocci jaasi nee na ka nga xam ne dafa dee ak ka ko rey ñoom ñaar ñëpp maanaam sawara lañ jëm saxaaba yi ne ko ah bind bi gën ñu koo jege sil ki rayee moom xam nañ ne dafa rey nit kooku buñ ñëwoon sawara la jëm ñun duñ ci am lu ñu jaaxal waaye nag ki ñu rey nag ki nga xam ne dañ koo rey wallaay ndeysaan fama baalul maqtul ki nga xam ne dañ koo rey ba noppi mu a dem sawara lu xew mu ne li na annahu kaana xarisan ala qatli saaxibihi moom ku amoon ak xër la bu sañoon rey mbokkam mi yéene jooju moo tax suñ borom subxanahu wa taala teg ko loolu moo tax lislaam di bañ loolu maanaam diine jàmm la joo xam ne rey gi du jëm ci sa biir moroomi jullit du jëm ci biir nit nit ñi kese kese waaw pexe mi li ko gënal ak rey bokku ci ak rey ci moo xam bakkan bu man di doon moo tax yonent saa sallam ne woon jaam bi de du dañ mukk di nekk ci biir diine di am yaakaar li fekk tuurub deret li feeg li feeg tuuru deret ëllëg yowmal xiyaam ñi nga xam ne ñoom la yàlla di njëkk atte mooy ñi nga xam ne ñooy tuurkati deret yi waaw allahu akbar awalu maa yaqdi bayna annaasi yowmal xiyaama fi dima deret yi la yàlla njëkk a di réglé dekki taxaw ne la waaw diw yaa ma lu tax nga rey ma rek laa bëgg a xam waaw yàlla ne la waaw kii maa ko sàkk mu ne ca biirum ndeyam am fay fan am fay weer ba def fay weer ma génnee ko mu mat ma di ko dundal di ko màggal ba mu ne léegi nga ñëw rey ko waa léegi lu tax nga rey ko lu tax nga rey ko allahu akbar yonent ne rey ab jullit benn jullit nit rey ko moo bàkkaar bi moo gën a rëy effacé àdduna waaw azamu inda allahi min zawali dunya waaw allahu akbar effacé àdduna far ko àdduna bañatee am kon ci bakkaar yu mag yi da caa bokkoon bokkaale yàlla gi ma la waxoon ak ray bakkan hadis bi may bëgg a wax yonent bi tegoon ca wal yaminul xamuus ak giñ ngiñ lu loo xam ne du dëgg ba noppi nga nuuru ca rek nga nuuru ca rek moo tax alxuraan ba mu waxee kutiba alaykumul xisaas fil la ba muy daaneel dane fa man ufiya lahu min aqi shay waaw ku baale pour indi buntu yàlla nee na rey gi gënalu ma waaw rey gi gënalu ma ndeysaan rey gi laa taqtul nafsan sulman illa kaana ala ibni aadama awal kafala min dammiha li annahu awalu man sanna al qatl waaw mu ne képp koo xam ne rey na bakkan te ak tooñ tax ñu boole ko bàkkaar bu tol ne bàkkaarub doomi adama ja waaw xaabil la moo njëkk rey xaabil bàkkaar bu tol noonu la cay am ndax kookaa njëkk a rey nit ci kaw suuf ndeysaan koo xam ne dafa rey nit te tey ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xetuk àjjana du ko xeeñ waxul mu dugg aljana de waaye xet ga du ko xeeñ lam yu rax raxatul janna ndeysaan mu ne te xetuk aljanna maanaam xeeñaay ba dana sori waaye doxum ñeent fukki at maanaam ku départoon dox 40 ans nga xam ne dañ naan la dëkk bi nga jógee ba nga jëm diggante bi doxub 40 la boo toogee fii dëkk booba di àjjana xet gi dalay xeeñ fii waaye ki nga xam ne mas naa rey nit mas naa rey nit te du bakkan bu ñu àtte woon àtte rey xetuk àjjana googu du ko xeeñ allahu akbar xetuk àjjana googu du ko xeeñ yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal baaxut waaw moo tax bépp bàkkaar xëy na suñ boroom jéggal ko boroomam lu dul ne waa ji nga xam ne dafa faatu te fekk dafa rey bakkanub jullit te tey ko waaw dafa rey bakkanub jullit te tey ko ba noppi te jéggluwu ko boromam wala defut àtte ba wala dab dabaatulut ya nga xam ne moo ca war kon mbokk yi suñ ñaareelu euh, kabira mooy rey bakkan te tey ko yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal waaw nga xam ne duñ fekkee fu ñu reyee te it buñ ñu rey waaw buñ ñu rey bu mu doon rey direct goo xam ne dañoo rocc fi fetal dóor ñu ko wala jaasi wala yat wala accident wala lu man doon ndeysaan ndax yooyu yëpp léeg-léeg nit ëppal ci léeg nit ëppal ci ëppal googu tax mu man caa def loo xam ne réccu rek la koy indil fii réccu rek la koy indil fële di ëllëg yowmal xiyaam moo tax suñ boroom subhaanahu wa wax ci alquran ne xul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsaana daane ludde dafa dem ba ca wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bi xaq yàlla nee na kaay leen jàng leen xam leen ne suñ borom araamal na ci yéen ngeen koy bokkaale digal na leen nit ngeen rafetal jëme ci seeni waajur ci waajur ñuy rafetal jëme ci suñu waajur yi waaye itam bañ a bakkan boo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala dafa araamal ñu rey ko yonent bi sallallahu alayhi wa ne moytandiku leen juróom-ñaar yii ñu ne ko juróom-ñaar yan mu ne bokkaale yàlla ñu ko ak ban mu ne ak njabar njabar dem ci maaman yi seetkat yii ñu la yëngali pettaaw wala ñu ne dama lay fanaanoo wala ñu yori kurus wala yu demee noonu ak rey bakkan boo xam ne yàlla dafa araamal ñu rey ko boo xam ne yàlla dafa araamal ñu rey ko boobu itam jar naa bàyyi xel doyoon na sëkk rek su ma nee la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam far àdduna ak li ci biiram yépp moo gën a moo gën oyof ci suñ borom subxanahu wa taala rey benn jullit ndax lan orma jum jox bakkan orma jum jox bakkan moo tax ki ko rey dégg nga mbugal mi ma la wax ne moom la koy defal dugal ko sa waraw jahannama saxal ko fa ba faaw ba noppi itam teg cene mere naa ko ba noppi teg cene mere naa ko nga xam ne ñeenti mbugal a ngi noonu benn bu ci nekk rek doyoon na sëkk doyoon na sëkk allahu akbar yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole jàppale musal ñu ci bàkkaar yu mag yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na buñ ko teetee moytu ko ba bañ koo def suñ borom subhaanahu wa taala danañu musal ci bàkkaar yu danañu jéggal bàkkaar yu ndaw yi waxoon naa nag ne la bàkkaar yu ndaw yi yu ndaw ndawaan yu bari yi bu yàggee mooy doon bàkkaar yu mag waaw yu ndaw yu bari yoo boole bu yàggee mu nekk yu mag kon bàkkaar benn ci baaxut ndax essence la buy toq ci saw yaram a nekk almet gi ko war a taal léeg nga toqal benn toq ci sa yére continuer di toqal dana tax yére bi taal ko yomb lool bàkkaar bu mag nag mooy këppoo biteel ba moom wala dugg ci biir mbànd ma benn yoon kooku moom ku la taaluti tàkk nga waaw kooku moom buñ la taalee buñ la taalut yépp boo moytuwut kooku tàkk na ba noppi mucc nag jafe na rawatina mucc ci bàkkaar waaye nag góor góorgóorlu tey ñaan suñ boroom njéggal tey dëpp waaw tey dëpp